anniversaire euh, bokk na ci euh, Famara Sano moom nag euh, doomu Caba Diagne la madame Sano c'est dommage que jotuma teeluma jot photo bi pour wane ko waaye ñu ngi koy nuyu bu baax sama doom la faamara Sano c'est de la part de yaayam madame le maire Caba Diagne ak papaam ak toute la famille Sano donc Lassana voilà Lassana Lassana mooy papaam yow xam nga leen bu baax donc Caba Diagne waaw yàlla na nga gudd fan wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay mati topp nga ma de <laughs> mu ngoog donc ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire joyeux anniversaire à petite sœur euh, Degen Ndaw euh, depuis euh, Pikine Euh, longue vie euh, beaucoup de bonheur de la part de toute la famille donc Degen Ndaw tey la anniversaire mu ngi nekk Pikine ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire de la part de toute la famille joyeux anniversaire à euh, Naar Mbodj depuis Mbour euh, de la part de sa maman Ya Aram ak euh, toute la famille Mbodj donc Naar Mbodj nekk Mbour maa da ngay gaaw nag ngir yàlla ak yonent bi ndax vraiment aussi ah, saa yoo ñëwee àjjuma ma na mu Pape Samba Thiam <laughs> Naar Mbodj depuis Mbour de la part de sa maman Ya Aram et toute la famille Mbodj ñu jàll kon ci bi ci topp euh, Ndeye Fatou Seck euh, joyeux anniversaire euh, Ndeye faatu kooku dégg la. dégg ndaw la. naa ne fi mu ne maa ngi ci. ce que amul problème waaw machine la moo tax <laughs> c'est pas grave. grave loo euh, Babali Massa bi la woowee boppam. <laughs> loo ko tuddee rek ànd naa àndatul ak xelam de yi moom <laughs> bëgg sa baay fonk sa baay loolu xam na donc joyeux anniversaire à Ndeye Fatou Seck euh, de la part de toute la famille Seck euh, sa maman Fatou Kiné Mbaye Kumba Matar ak Fama. joyeux anniversaire à Adji Ndeye Sokhna Diouf euh, de la part de son homme Souleymane Souleymane Tall. kii du waykat bi. dañoo niroo sàkkar yàlla dañoo niroo day fàttu sekk rek ku bëgg lu sekk la gën a nirool waaw kay wax nga dëgg. waaw jàll leen dégg nga. ayca oustaz daa bëgg a pelloo ko te xaar bi daa yàgg. <laughs> donc. Euh, pourtant Ndeye Fatou Seck la. Ah, oui joyeux anniversaire à Ndeye Fatou Seck de la part de toute la famille Seck sa maman Fatou Kiné Mbaye ak Kumba Matar ak Fama Kumba Gawlo Matar Seck ak Fama Tour voilà euh, donc moom rakk la ci Kumba Gawlo Seck tey la anniversaire am Ndeye Fatou euh, ñu ngi koy souhaiter euh, joyeux anniversaire de la part aussi de famille yaayam Adjot Fatou Kiné Mbaye joyeux anniversaire à Adji Ndeye Sokhna Diouf de la part de son homme Souleymane di souhaiter itam joyeux anniversaire à Badiane Ami euh, John Paye. Euh, tu es la reine du jour. Oh. Ami John Paye. Joyeux anniversaire à Henri Guigon, euh, c'est de la part de Côte du Fall. donc Codé Fall mooy souhaiter un bon anniversaire. à ah, Henri Guigon <laughs> wala baayam wala maamam <laughs> Henri Guigon euh, bon anniversaire c'est de la part de euh, Codé Fall anniversaire à Ramassène nekk HLM euh, c'est de la part de toute sa famille ak tonton Off. donc tonton Off Mbaye mu ngi koy souhaiter un bon anniversaire joyeux anniversaire à Raphaël c'est de la part de sa tata Mame Marie Mbodj qui l'aime fort Mame Marie Mbodj donc mooy souhaiter un bon bon anniversaire à Raphaël et on finit ak euh, Basirou Thiam tey la anniversaire am moom nag euh, mooy caatu Tata Khadi c'est de la part de euh, Dikel et toute sa famille donc Basirou Thiam bon anniversaire mbokk ñu jeexal jotaay bi li ci des ñu bàyyi ko ak oustaz Pape Anne mm-hmm. docteur Massamba Gueye ñu ngi lee gërëm bu baax dig daje gi incha allah ajjuma ba li di ñëw lu soobee yàlla. ajjuma di ñaan.